demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq ne xéem wasalla lilxaq min alxaq almubin lii xaadama baana wa ma laysa yabin wasalla lilxaq min alxaq almubin lii xaadama baana wa ma laysa yabin علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين في القسران لم ينحني درو نار الدنيا واقتسني الباخي بخير سنيا gi Sëñ lañ koy defal kon njabootu Sëñ Tuubaa gépp ko moom moo tax mu ne woon nañ dem ci njabootu Sëñ Tuubaa gépp yëgal leen ne màggal gi dafa am particularité bu ci am mooy lim li ñu tombeek centenaire téeméer téeméerat téeméer at xam ne ba sëñ Tuubaa làqoo ba léegi mot na kooku war nañ koo am neen nuñ ko màggale te nañ ko war a màggale nag mooy àdduna bépp yëg ko xam ko ba nga xam ne dem nañ ci sëriñ sëpp nag xalifa sëriñ Tuubaa dem nañ ci waaye waaye li nu andi daal mooy màggal gi daal ren la centenaire bi am na beneen beneen beneen beneen taxawaay duñ bëgg mu am ko àddina yëpp wax ci sëñ Tuubaa lu bari daal dem nañ sëñ sëñ Muntaxa joxe ndigal tam murit yëpp tam beneen bis boobu nag du bisu kenn suñu bis la ñun ñëpp ndax sëñ Tuubaa ko moom mu wax ci télé beeg rajo beeg yëpp nag ne képp koo xam ne yaa ngi ci biir réew mi bitim réew mm. euh, bis boobu sa bis la war nga ko màggal war nga ko taxaw ak koo mën a nekk waaye nag nag ñëw ñu dégg ko seeni gémmiñ yéen ñi nga xam ne yéen a sëñ Tuubaa day day tax taalibe yi gën a am engagement gën a am kontaan naa ca ndax lu mu mën a doon rek nit nañ xam ne waa kër sëñ Tuubaa d'accord ne lii nii lañ ko bëgg a defee ñu ko defee rek yi fi dana am dana am impact bu baax a baax ñu ngi lay siyaar bu baax Mbàkke eh, ci turu sang si ñu àndal ndax eh, ni ko sëñ Cheikh waxee eh, bi bis bi jub bay Baye Ahmadou dafa wax sëñ Ousmane ni ko dafa bëgg njabootu sëriñ Tuubaa gépp àndandoo eh, ñu xool màggal gi eh, ginnaaw mooy bi sëñ bi ñibbisee téeméeralu at bi ñëpp àndandoo ci jëmal ko am njàngat muñ ci def ndax jàpp nañ ku tedd ki bu fi nekkee di liggéeyal lislaam ba bàyyi ko fi sumb li mu sumb téeméeri at ci ginnaaw warees naa am luñ ci jàngate warees naa am luñ ci mën a wone warees naa mën a am luñ ci xame ci biir loolu nag mu ne daa bëgg kon màggal gi dëppook téeméeru at bi dëppoog boroom moo tax mu dajale njaboot gépp euh, xam na dafa am ñoo xam ne sax liggéey bi leen jàpp ñu dem ci yeneen waaye commission bi daanaka ñëpp ci bokk suñ Cheikh euh, mu suñ Abdoulaye Sibaar bi moo ko jiite suñ Ousmane Topp ji suñ Sidi suñ Abdoulahat mu suñ Aliou man mi ci lañ bokk suñ Bas Ñaan Cheikh Ndiaye ak ñeneen ñi nga xam ñëpp ci lañ bokk léegi nag mu na ngeen jóg ngeen dem ci mbooleem njabootu sëriñ bi tàmbalee nañ ko Cheikh Mouhamadoul taxa mu yëkkati téeméeri million moom barkeel la ko ci wax ci wax jam ca wax yëpp ni jot na àddina bépp xam sëriñ bi jot na àddina bépp xam sëriñ bi lu mu bëggoon ak lu mu namoon ci nit ki ak ban taalibi la bëggoon loolu nag mu nekk liggéey boo xam ni bu yaatu la eh, biñ ko xalaatee nag eh, sëñ bi joxe ndigal ni nañ ko def ci région yëpp suñ màggalee nag ba ci suba sa ñu def li ñuy wax synthèse ci fii def cérémonie religieuse boo xam ni jàngat li ñu def lépp euh, tënk ko moo koy tax a jóg loolu daal mooy li nga xam ni mooy solo si sàkku nag ngeen ñaan ci euh, ñaan goo xam ni li tax ñu bëgg koo yaatal ndax lu lu diis la ndax téeméeri la at ginnaaw sëriñ bi du lu oyof kon nag ñi sàkku ñaan ba nga xam ne lépp dina mel li nga xam ne lañ ko bëggee barakat fi sula alayhi salaam sunu bokk yu tedd ñu ngi leen di siyaar bu baax di bëgg ci seen teewaay fii jiital ci siyaar bi nag ak cant ak ngërëm li cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni mooy sëriñ Touba te ndigal li bàyyi ko ci moom ak jëf jure ji sëriñ Cheikh tudd léegi mu tàmbalee ko ci bis bi muy téeméeri million ci téeméeri at yi nga xam ni bi Cheikhul Khadim wàcce ak léegi la di ci tegit Serigne Ahmadul Maxtar mi nga xam ni moo fi nekkal cheikh Mouhamadul Moustapha. te ko sëkk te xalaat bi rafet ci nii mu ko tëralee jox leen ci ndigal ak yaatal gi nga xam ni yaatal na ko ci bokk ko njaboot suñ Tuubaa gépp te kenn desut loolu tam faw ñu beral ko ci suñu cantuk bopp ah, li ñuy jëkk wax nag bala ñuy agsi ci ko tedd ki nga xam ni moo waral bis bi mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha bi nga xam ni moo ko jëkke te sos ko te taxawal ko ginnaaw sëñ Tuubaa eh, lu ñu ciy waxee lu wér lay doon loo xam ne ci Cheikh Abdoul lañu ko jëlee li ëpp ci ay waxtaanam ci suñ mbir Moustapha dan danu ci daan leeral nuy xam te loolu lañ gisaat tey ci doxin woowa bi ci jëkk moom ci boppam wax na ko suñu axma daaru xulus bi ba tey ni ko lu ngeen gis ci sama doxin mu naqari leen bu leen ca xalaat seen baay la ndax mu du Moussa rek laa xam mu yar ma ma jël jikkoom ak dox yi nag roy ko ci moo tax it yàlla dimbali na ko ci xel mu rafet mu Cheikh Mouhamadou Moussa bi nga xam ne joxoon na ko ko ak yëm ko daan dénk yam ko daan digal mu teg ca tànkam ba yaakaar na réussir na ci mbirum sëñ Touba bi ci jëkk lii ma leen ciy wax lépp moo ma ko def ci woon loolu pas-pas a ko pas-pas a koy waral ndax dafa waxoon ni Cheikh Mouhamadou Moustapha da ko woon ba mu ñëw fukki yëf ak yaar la woon euh, waaye yàlla damaa nattu ba la ma ca lenn la mënatuma koo takk waaye fukki yëf ak yaar la ko dénkoon ñaa da ko ba mu ñëw mun ko Abdou Lahad mun ko Mbàkke mun ko dénk naa la liggéey mu ni ko it gannaaw sëriñ bi am na am na am na leeral gu ma def mooy dama ni leen nangu naa ñu dem ci kaamil yi alxuraan yi juróom-ñeenti kaamil yu ngeen wàññi ba ko fukkeel maa ko bind joxe ko nangu naa ñu dem ci sàq yi juróom-ñeenti sàq yu ngeen wàññi ba ko fukkeel maa ko bay joxe ko ba noppi nag mu jur ma teg ci kon du ma mën lu may lépp lu mu bay rek ma teg sama loxo fulla jooju it Cheikh Abdou Lahad moom la rayoon ci moom ba ca ba ci beneen bi ci topp itam jamono yi mu woto Seexul Xadim day jamono yu jafe di jamono yu tar da jamono yu diis ndax koo xam ni kii saa boo masa agsi ci moom lépp loo ko wax ma laaj ko sama la lay wax wala Sidna Jibril ñëw na fi léegi wala Sidna Jibril nee na nangam ak nangam ak nangam nit ñi miin ci moom loolu nga xam ne jamonoy sëriñ bi ci njaareem baatin bi daa mel ni rek foo génn ci mbedd mi taseeg moom mu dem nag bàyyi fi Cheikh moo Moustapha mu fas yéenee téye nag mboolem lu fi sëriñ bi bàyyoon doxal mboolem lu fi sëriñ bi bàyyoon loolu liggéey bu rëy rëy la boo xam ne njabootu suñ Tuubaa gépp boo gisee kenn ku ci nekk ñëpp sax ba nga amee sab taw tudde ko seexul xadim ka ca topp moom nga ko duppee la waral loolu mooy cofeel goo am si moom ak taxaw gum la taxaw ak nargam gum leen nargan ci liggéeyal sëñ Tuubaa moo waral loola loola di dox ba agsi nag ci kilifa yi xalifa yi fi jaar yëpp kenn ku ci nekk gis fa Seex Moodu saa tegoon tànkam nga teg ko fa yàkkali di yàkkali di yàkkali ba agsi nag tey jii ci Seex mu Muntaxa mii nga xam n ñëpp a koy maas di ko ñaanal yàlla ndax mbirum sëriñ Touba ni ci doxee ak lim ci nargan nit ñi ndax mas naa ko wax booba doonagul jataayu Serigne Touba bi ndax melokaan bi daf ma yàgg yéem ma ñëw ci moom ni ko sëriñ bi de ñun ñi nga bokkal Serigne Touba nuy say rak bàyyi nañ la xel ndax doxin wi ñu gis ci yow mu ne ma lii nga may wax de maa ngi koy jàpp ne la ma sëñ Bachir waxoon mu ne sëñ Bachir damaa ñëw ci moom mel na mag toog. di wax ci man lu baax mu ni jàkk di ma xool rek muy wax ci man lu baax ba mujj ba mu jeexalee sëriñ bi joxoñ ma ni ma déngaawaay kii li muy wax ci yow bu nekkee ci yow fexeel mu sax ci yow bu nekkul ci yow fexeel mu nekk ci mu ne ma loolu ab soññee laa ko jàppee ndax moom képp ku mu gis ci waa kër sëriñ bi rek lépp loo wax ak moom rek day mel ni day jàpp danga koy daggi ak danga koy soññ ci liggéeyal sëriñ bi kon ni nga koy sant di ko gërëm bis bii nuy waajal nag nga ne mooy bis bi gën a rëy ci àddina ndax mooy bis bi seexul xaddim dajeeg borom euh, gis ngeen fi ko bind fu bari sëñ bi bind ko mooy na nga def bis bi gën ci bis mooy bis bi may dajeeg yow loolu mooy bis bii ñuy dëgmal mu tombeeg téeméeri at nag di xarnu loolu nag boroom jamono ju ne ba nit yàlla yi am ba nëgë ni xarnu bu ne suñ borom daana yebal ku ñëw yeesalaat nit ñi daggiwaat leen yeesal leen moom nag gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi ñëw taxaw taxawaay boo xam ne moom Seexal Xadim ba àdduna sosoo ak tey nit mus cee teg bët turi téere xasida mus koo bokkaleeg nit turi doom mus koo bokk bokkaleeg nit turi dëkk mus koo bokkaleeg nit lu ci ne suñu borom tànnal ko ko ba ci dëkk bu tedd bii nga xam ni fi ko fas yéenee defe muy màggal gii nga xam ni màggaluk Seexul Xadim la nga xam ne jullit yëpp ko bokk taalibi murid yëpp it bokk njaboot suñ Tuubaa képp bokk kon bu ñu demee ba si ci xarnu bi tey sëriñ bi joxe ndigal ñu war a yaatal war a yàkkali wala gën a leeral mbirum sëriñ Tuubaa dafa jot sëkk sëkk sëkk ci ñëpp maase ko xam ndax sëriñ bi kenn du ko noonu des koy umpale rek képp ku xam sëñ Tuubaa ak la ne ca moom faaw nga sopp ko ndax dara mosu ko itteel lu dul sunu borom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yàlla kon jullit yëpp a moom bis bi rawatina taalib yi murid yi rawatina nag njabootu Sëriñ Tuubaa gi màggal gi ndigal li day daaru xutus waaye képp ku bokk ci Sëriñ rek ak foo ca mën a bokke rek bokk nga ci bis bi tey rawatina nag bi ci Seex Moodu Muntaxaa joxee ndigal li te jox ko mbooleem taalib yi te taalib yi ndigal rek lay wéyee wartu amul tànn ci boppam mu jox ko bokk yépp ndigal jox ko taalib yëpp ndigal kon ñëpp dañoo war a fabu ànd ak yi ànd xam ni suñu mbirum bopp la nu ànd ko dox ànd ko wax ànd leeral mbirum sëriñ bi ba ba ni ngeen ko bëggee ñu defee ko noonu fas na nu yéene incha allahu tabaraka wa taala ndaje yi ngeen ci ubbi yëpp muy ndakaaru muy Louga ak ak fu ba ci njaarim fu ci mën doon rek danañ fa teew teewal fa njabatu Cheikh Abdoul Ahad bi yëg nañ ni dem ngeen ci kilifa yëpp kenn desut te jii dama cee wóotu njabootu Cheikh Abdoul Ahad bi wóotu ci sunu kilifa muy Serigne Sidi xam leen ni lépp lu ngeen nekk rek. danañ ko ànd ak yéen ndax ñun dañ dañoo dañoo dañoo dañoo mënta fay njabootu suñu Mourou Moustapha ndax taxawaayam ci ci ci ci ci Cheikh Abdou Lahad kàbb gii tey dar kàbb tey moo ko moo ko fa yebal suñ Mbàkke Madina la fa jëkk yebal mu jóge fii boobu ay fas lañuy war dem dëkk bu ñuy wax Saam gi fa la yendu boo seetloo tey ji li ëpp ci Saam gi njabootu Sëriñ Mbàkke Madina lañ ñoom Baara Gueye ñoom ñi ngay gis ak Cheikh Barguim ñëpp foofu lañ bokk mu yónnee tëll garam mu dem ndànd fekk suñ suñ mbàkki ma dañu ngi koy defal ngan ci sam gi tëll garam bi dem ñu dem kàbbu fekk ko euh, sam dem dem sam gi fekk ko fa bañ demee jox ko tëll garam bi Cheikh mu Moussa waat ko ni ko wàññeekul jël si mu dagg ngan nga ñibbi si ba mu dikkee mu woo Cheikh Abdoul bind bataaxel jox ko ni ko jox ko suñ kàbb bala yaasin daal di si bind ci bataaxel ba ni ko seenum suñ tuubaa ngi noonu bu ko jëm si ci man foofu loolu la ko jëkk defal daaru salaam mbokk ci barke gii moo ko joxoon sëñ Cheikh mussa boppam la ko a defal gor ko randu dem gaalooli jóge fa dem coon bàyyee ko bàyyee dëkk dëkk boobu yi tey ci ci wàllu taxawaay ci liñ ci mën a tudd rek waaye yeneen yëfi biir yi moom euh, sunu làmmiñ du ko tudd mukk ci àddina waaye képp kuy njabootu Cheikh Abdoul euh, am nga bor boo amee Cheikh Moudou Moussa boo xam ne mënoo ko fay Euh, kon nag bis bii maa ngi ci soññ ñi ma bokkal sëñ Tuubaa ñi nga xam ne nun ñëpp ci njabootu sëriñ bi lañu nan xam ne noog sëñ Ahmadou Mokhtar noo ci am noo ci bokk taxawaay bokk ci yéene bokk ci pas-pas kon nag kenn ku ne na soññ boppam ku amul ngànt na ñëw ànd ko yéen ba mu jeex man ci sama jëmm di boppam de moom ndaje mu ngeen ci def incha allahu dinaa ko ànd ak yéen ñu ngi sant ñëpp di leen ci ñaanal ndam nag ci saayir ak baatin te xam ne bis la boo xam ne bii tey ku ci yëngu ak noo ci mën a yëngoo sëñ Tuubaa dana la defal lu ka sa njort te lii ngeen defit ci ndigal ngeen ko teg te ndigalul sëñ Tuubaa ndax ki fi nekkal sëñ Tuubaa moo ko sant mboolem jullit yëpp sant ko yépp yëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh lil haqq min al haqqi li xaadama baana wa ma laysa yabin wasalla lil haqqi li xaadama baana wa demam nga ump na mindéef te um na boppam kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk ne xéew